parce que déglu candidat yi dafa am solo lool parce que ñoom kenn ci ñoom kenn ci ñoom le 25 mënoon naa nekk président de la république toog fi mu toog Sénégal biñ ko xamee ak léegi lii su fi am ñun rupture bi dañu gis ni c'est une rupture institutionnelle brutale Et c'est une rupture institutionnelle bu fekkee ne da ngay dem ba nga ne damay reporter ñii la gën a jëkk a concerné ñëpp waaw ah, ñii ñoom ñii ñoom ñoom lañu ñu waroon a woo wax ak ñoom déglu leen ñun ñu wax ak ñoom amul kenn ci vingt candidats yi ku d'accord ci report loolu lu leer la deuxièmement mooy lu am solo mooy problème mu droit de l'homme ak liberté d'expression suba bu fekkee ne li ñuy def dañ koy def dans la paix nañ leen a bàyyi bu ñu leen a bu ñu leen a yoon dóor ay lacrymogène te kooku dañ koy wax ñi nga xam ni ñoo koy def parce que seen droit la constitutionnel boo xam ne moom la war a def te loolu tamit ñun ñi nga xam ne ñu toppatoo ak ak yelleefu doomu aadama ak liberté yi dinañ ko surveiller bu baax maa ngi leen di gërëm di leen sant Merci beaucoup. Merci à les candidats si présents et à, aux autres candidats qui auraient dû être là et des contraintes. Donc, comme vous, vous avez pu le constater, l'ensemble des candidats qui sont si présents rejettent systématiquement le décret verbal qui a été euh, annoncé aujourd'hui à 14 par le président de la République. Étant donné que ce décret n'est pas du tout reconnu, qui est rejeté systématiquement, L'ensemble des candidats si présents considèrent que le processus électoral continue. Et cette continuation du processus électoral aboutit à, au commencement de la campagne électorale ce soir dès minuit. Ainsi, tous les candidats si présents et ceux qui n'ont pas pu être là appellent tous les Sénégalais à converger demain au niveau du pont Saint-Lazare pour prendre la direction de la VDN, direction Dakar. Demain, à partir de 15 heures, une structure sera mise en place regroupant tous ces candidats et nous, faisons, nous appelons tous les autres candidats qui ont été recalés lors du parrainage. Nous appelons la société civile, les forces vives de la nation à venir se joindre à cette structure qui est extrêmement importante. Puisqu'aujourd'hui, le Sénégal est euh, à la croisée des chemins. La situation est grave. Le président de la République qui, comme l'ont précisé certains candidats, est en train de faire un coup d'État constitutionnel et si on laisse faire, cela va aboutir. Il appartient au peuple de reprendre sa souveraineté. donc pour tënk ko ci wolof gudd na ba pare candidat yi nga xam ne nii ñoo fi daje ak ñi nga xam ne nii bëggoon nañu ñëw te jotuñu ñëw dañu rejeter systématiquement décret boobu nga xam ne nii président de la république waxee na ko ne mooy remplacé décret bi convoqué woon élection yi bu ñu ko rejeté loolu mooy le processus électoral dafay continuer processus électoral bi continuer dafay signifier que tey à minuit campagne électorale bi dafay commencer et donc loolu moo tax ñu jox rendez-vous à tous les Sénégalais demain point de convergence bi demain la ci pont wu Saint-Lazare pour ñu jël VDN bi jëm dox dem Dakar beneen bi moo di candidats yi nga xam ne nii ñoo fi teew ak ñi jotul mën a ñëw dinañu mettre en place benn structure boo xam ne nii danañ ko waxtaanee euh, bu ñu ko waxtaanee ba pare dinañu informer presse bi mu nekk structure boo xam ne nii danañ ci woo ñëpp ñu ñëw dugg ci puisque nekkul seulement l'affaire des candidats mais l'affaire de tous les Sénégalais. ñu ngi noter comme vous avez peut-être pu le constater la présence du président Mamboy Diao bi nga xam ne nii euh, dafa feebar et malgré le ñëw na teew. waaye dafa ñaan feebar bi moo tax nanguwul euh, du mën a jël kàddu parce que il est très souffrant donc loolu moo nekkoon lu ñu leen bëggoon wax donc rendez-vous demain à 15 heures sous le pont Saint-Lazare direction Dakar merci pour votre attention